waaw am ànduñu ci résultat yi parce que dafa wone rek càcc bu rëy moo am ci résultat bi procédure bi mu commencé ba tey sàcc moo am ci résultat yi kon tey tey ñun reconnaître ñu Macky Sall comme président de la République du Sénégal waaw constat yi ñu def nii achat de conscience moom bëri na loolu Tambacounda ak transfert d'électeurs aussi waaw loolu moom ñëpp teg nañ ci bët parce que ay junni ay ñaari junni lañ doon jox nit ñu wooteel euh, Macky Sall la jox benn koo xam ne avant élection bi du di leen jox xaalis pour ñu wooteel leen aduna dañuy nekk ci politique rek mais xamuñu parce que tey Idrissa Seck le 9 août lay am 60 euh, ans xam nga kooku xale la kooku du morom euh, Ousmane Tanor moo ko mag fuuf Cheikh Sissoko moo ko mag euh, fuuf Abdou Moustapha Niass moo ko mag fuuf te ñoom ñaata yoon lañ présenté ci élection propos dafa xaw a parce que moom le président du conseil départemental moom moo wax propos yooyu mais moom ci boppam soo xoolee moom Idrissa Seck lu mu ko magee barul kon xam nga kooku kooku su su moom il était à la place d'Idrissa Seck n'allait pas ko ci ci